santaat yàlla bu baax a baax di julli senante bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla nañu yàlla xaare àjjana fi yàlla ba si kanam a kanam di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg loolu te wér di fili di félicité tamit sunu lions yi ñu ngi leen di félicitation ñoom ñëpp waaw ndam li moom waaw kontaan nañ ci bu baax a baax waaw. combat bi yàgg naa. waay bu sàkk yi tey yan torof torof la mën a jural athlète ci kombaa bu toll nii. waaw boo xoolee euh, boo xoolee pousse poussaat yi euh, benn mën nañoo wax yàlla sunu borom la yëpp sax la wax ne yàlla sunu borom la ndox yàlla sunu borom moom lu mu namm si yow rek ala kulli yaan day am waaw ñun moom loolu noonu lañ ko jàppee quoi. moo tax dañu woon dara su ñun ñu ngi doon entraîné guddeeg bëccëg waaw loolu la ko <laughs> fan lay mujjee rek rek la parce que li nga naan la mën la ëpp doole mm-hmm. mais léegi rek daan waa yàlla ma yàlla may ndam ma mës yambar yow ndax lii yeewu si man lii nelaw si man yeewoogul quoi mais bu yeewoo rek incha allah dinañ xam kan mooy champion wala kan mooy mbër mi waaw ah, mais euh, Reug Reug bi ñu la nuyoo siyaar la bi ñu gisee sa diggante ki nga xam ne mooy Gouye Gui taxaw bu ñu gisee sa communication bu ñu soog a taxaw dafa mel da nga desee euh, nawloo adversaire bi à 100 pour cent. non Gouye Gui nawloo naa ko nag wax dëgg yàlla mooy maanaam tey ji gis nga àdduna répété naa ko répété waat ka kon jaruma si dem au jusqu'au bout quoi tey ji gis nga mbër dafa doon loo xam ne tey ji sa combat booy wax sa quoi ba sa combat taxaw man sama gis-gis wax amatu fa quoi xam nga ma su liggéey liggéey moo fa des moo tax wax ji ma jëlee ko tekkee ne di liggéey waaw loolu la ko ci ba tey du mës a denc ci àdduna barki alxuraan barki Cheikh Tidiane waaw dana la mm, yàlla baax na nañ bàyyi ba jam baax na nañ bàyyi ba si ba bis ba rek incha allah xam fu wànne di mu jekki bëtam. waaw toujours doo rek rek problème mu kaar. Mhm. nag boo leen xoolee guy gi mënta xeex. non non guy gi xanaa xam guy gi maa ko dàq xeex. guy gi mënta xeexle wax jee fi nekk nii rek. mais guy gi mais benn kawo loolu loolu la loolu mbalaaw la gos mbëkk ka. da hmm. kaa mbëkk rek doonul ko boo xam ne. kii da ngay xam ne kii kuy dóor kuu bi ab ragal moo dóor kuu bi. Hmm. looloo tax dal sa waay ay dóor yi kuu di xàcc. loolu du wan loolu du du mën a xeex xeex fii la ak xool coup bi xool ni ngay dóoree ku xool ni ngay maytoo ku man kenn du ma dóor coup may kenn du ma dóor coup ma gëmm non jamais de la vie. tàggat gi day gëmm. waaw kon gis nga combat bi xeex mën na ci am. lépp lépp moom kay dégg naa ko moom mu ne entraîné wul trois courses la jëloon doon xeex ah nee na fu mu fu mu gën a mité mooy maanaam fu mu dóoree rek nga nelaw hmm. maa ngi ko siy ne na na maanaam li mu wax noonu. nga la waay bu ñu demee ba si jour boobu bu si bu ñu si dindi dara dara dara. waaw mais maa ngi lay wax lu tuuti te bëriwul lii xew sa géew ba. man la. <laughs> bi nii enceinte ba bi da nga yokk masse. adversaire bi moo ñun dañuy liggéey ñun ay xale nañ mhm. ñun moom dañuy liggéey ku ñu xam moom liggéey nañu xamee. Mhm. xam na ne ñun duñ lu gën a buñ ci euh, combattant mooy maanaam nga si mhm. ñu naa ci mbayam liggéeyul loolu man defet la si man. man fu ma simeeku damay nekk si état am doole. waaw li si des ñu bàyyi loxo suñu borom. Thierno booy na. Hmm. Hmm. loolu du si wax dara ndax MMA ak làmb bokkul. ñu ngi fi. Hmm. adduna ngi fi ñun ñëpp a ngi fi. yàlla baax na nañ dem ba si kanam incha allah dinañ xam kan mooy ragal bi dinañ xam kan moo amul fit. dinañ xam kan moo amul garde. ay na ci booy yi nekk ci yoon man bokk ak booy yooyu. Ama Baldé bi mu tëwee moo moo ko fi arrêté rek. bokkuma ak booy yooyu. 2012 hmm. 2000 hmm. nga wax. waaw ñu ngi si 2022. 2022 ok ñaata ñaata. 10 ans 10 at bi day yokku. at bi day yokku. doole ji mënta yokku non day wàññeeku waaw <laughs> jëm mag yokk non ñun suñu doole yokk waaw <laughs> ah. loolu ka ba pare soloon na fi ndox soloon na fi gi <laughs> soloon na ah. gis ne bi Ama Baldé di gën a të guy gi da koo jël defar ko bi Siteu di ñëw di të guy gi da koo jël daan ko ñu gis Siteu nekk sa doomu ndey mën naa ne sax combat bi revanche la ci yow lan ngay wax ci loolu nit di nga mën mu daan la foofu laa si xanaa déggoo ma la nit ki. di nga ko am man fuuf jour bu ñëw mu daan la lamb moo tëddee noonu. li lamb day ëmb day xëy day xëy rek wasin lamb moo mel noonu. lamb da ngay ñëw teg étirage étirage bi bii laa laa bëgg a kii nga ñëw si lamb ja juum. mu ne la yaa nga def kat at mu ne lay yaa mbas la nga daanu lamb moo demee noonu. yaa dégg moo tax may la di nga daan koo xam ne moo la mën si lamb. mais ñun dofuñu. lu ñuy def xam nañ ka fu ma bëgg sama bët fii fu ma ko teg xam naa ka man dañoo yaakaar si man roi des arènes gi guy gi kenn yaakaarul si moom roi des arènes attend moo ñëw ma ne la man dañoo yaakaar si man roi des arènes guy gi kenn yaakaar si moom roi de arènes waaw a dama kaa xam rek yéen ñii journaliste yéen xam ngeen ko yee yéen ñii ñëpp xam ngeen ko yéen ñii ñëpp xam ngeen ko man pa buy communiquer man danaan la kii séntu naa moom si roi des arènes est ce que benn pa mooy communiquer ne guy gi gis naa si moom roi des arènes boo amee ngeen ne ma am na. wala ngeen ne ma damay fen ah gaal gi foo ko ser gaal gi. waaw <laughs> moo ko siwaat bu baax a baax. Ah. Oh. gaal gi nga may laaj li ma laaj. waaw gaal gi mu ngay géej géejewaay. du fa mës a jóge. Ah. Ah. gi dañ koy yab si gaal gi rek. Hmm. mën loolu. am na ouragan beneen buy ñëw. Ah. nañ ko xaar. waaw en tout cas daal. Ah. en tout cas daal mosoo gis ndaara buy jël pee. ndaara buy laa yem. Ah.